bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin almaliki alhaqi almubin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi mursalin سيدنا ومولانا محمد المكين الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه وخديمه ونور الجنان مسدد اللسان yaa man la mu dikkali wa sukri durus xasaniya ku fa teewal yoon mun rek loolu am na lu tax te loolu yàgg nañ koy gis Mbàkke yàlla na sa taxawaay yokku maa ngi jaar ci yow di ñaanal Cheikh Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom gën ko dëgëral ba yéene bi mu am di ko liggéeyal Serigne Touba mu matal ko maa ngi nuyu képp ku fi teew di ziare waa kuréel gi di ci jiital sëñ Ibrahima sëñ Saane ak mboolem ñi ko jàpp jàppale ci liggéey bi ñi mu ko seqal Cheikh Massamba sëñ Abdou mbay ah, sëñ Xaadim ak ñëpp rek Cheikh Abdou Xaadir ginnaaw loolu ma njëkkee ci barkeelu ci waxu Cheikh Abdoul Ahad bi mu doon wax ne wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar Serigne Touba rekk lañ ko def moom Cheikhuna Ahmadul Khadim moomu ba tey Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon ne ngir de ku ne xam na ne boo ko defee jotoo dara ku eh, ku ne ni sooy nga waaye ñun de suñu ngir nii bu xamul ne sooy nañ tam bu ñu xamul ne sooyu ñu itam waa waa kaw xam nañ ne sooyunu waa suuf xam nañ ne sooyunu te ngir moom mooy Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom lañu am Cheikh Ahmadou Khadim kon ñu ngi jaar ci loolu di di ko ci sant moom Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Khadim ndax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne ku santul nit du sant suñu borom ndax ñaareel bu yàlla di defal nit dara dafa koy daf koy jaare ci nit kon ñun li ñu Serigne Touba defal Cheikh Abdoul Ahad doon wax ne lépp loo xam ne rek waroon nañ ko bëgg ñun jomam fàggul nañ ko lépp lu ñu doon daw jomam dàqal nañu ko kon ñu ngi jaar ci loolu di ko sant moom sëriñ Touba di wax jëre Serigne sëriñ jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikhuna Ahmadul Khadim sëñ Mamoul Cheikh Mamadou Fadal dafa waxoon ne sëñ Touba nii moom la ñëpp diw te ñun rek ko am sëñ Touba nii ñun ñëpp ñun rek ko am sëñ Touba ñun rek ko am kon ndox ñu ngi sant suñu borom bi nga xamee ne baaxee nañu jëmm jooju di Cheikhuna Ahmadul Khadim nga xam ne nag mënoon naa feeñ fu ne kaw suuf yaatu na juróomi continent yi yaatu na Afrique gii ñu nekk rek cinquante états ñu teg la mënoon naa feeñ fu ne waaye ñun la ko suñu borom baaxee kon ñu ngi sant suñu borom ci baaxe gum ñu baaxee Sëriñ Touba Cheikhuna Ahmadul Khadim mel na ni wax ji sax mën naa bañ a yomb ndax jàpp naa ne lu bari ci lu fi matoon a wax waxees na ko waaye ñu am rek luñ ci doon sëriñ bi ñu ngi sant bu baax bi ndax jàpp naa ni thème bu am solo la muy teggin sëñ Tuubaa ñu ngi koy wax di ko sant te li li tax ñu mën a jëriñu ci sëriñ Tuubaa mooy ak taalibe moo faral boppam ni aw ma mag aw ma rakk aw ma aw ma doom li fi ne li koy maye mooy nga nga nga sukk jébbalu ñu lay sant lu ñuy sant taalibe yi la digal ñuy digal taalibe yi yaakaar naa ni moom la képp ku ñu fiy tudd noonu la def ci Serigne Touba te taalibe googu bu ñu xoolee weesuwul jëmmi teggin taalibe gi weesuwul ak teggin ñu ngi sëriñ bi nag képp kuy kilifa ku fi teew tàbbal nañ leen ci biir sëriñ ko ñu ngi lay nuyu bu baax a baax kon dama wax ne teggin sant nañ la sëriñ bi ci joxe bi ko joxe ndax mel na ne li tax ñu mën a jëriñu ci sëriñ Touba ci ak taalibe la ne te jëmmi teggin mooy jëmmi taalibe mooy taalibe teggin baat bi ci wolof teggi yin jëlin teggi yin maanaam façon de faire la manière la manière la ci doxin ci waxin ci jëflante muy lu am solo ci nit ki teggin googu nag Sëñ Tuubaa tëgg tënk na ko tënkin yu bari yu wute ñu mën koo xaaj ci benn considération bi ci ñetti xaaj mooy teggin bi dox diggante nit ki ak boroomam teggin gi dox diggante nit ki ak moroomu nitam teggin gi dox diggante nit ki ak jëmmi boppam bi Sëñ Tuubaa ne teggin ñaar la teggin sa diggante ak sa boroom boo jëfee ndigalam bàyyi teram te gërëm ab dogalam wàccoo nga ak teggin sa diggante sa boroom sa diggante ak sa morom mu nekk boo fexee ba doo tooñ kenn te képp ku la tooñ nga jéggal ko ngir jëmmi suñu borom bu boobaa wàccoon waa teggin boobu teggin nag sa diggante ak sa bopp mooy lépp loo xam ne bëggoo ku ko nettali nga nga dégg ko boo wéetee ak boo wéttali ko bu ko def loolu boo ko matalee matal nga sa dégg sa teggin sa diggante ak sa jëmmi bopp ji bu dee ci geneen wàll jëm ci bu fekkee ne teggin ci ci geneen gisin dafay taxawaat ñett ñetti taxawaay muy jëmmi nit ki bu fekkee dañu considérer at yi muy dund ak mageel ak ku ko mag loolu sëñ bi wax na ko waxin yu wuute te bari wajal saxiranaa yu waqirul kabir wajal kabiranaa yu aynul saxir yow suñ borom defal suñuy mag ñu yërëm suñuy ndaw def suñuy ndaw ñu yërëm suñuy mag boo ko defee teggin boobu wàccee nga ko mu des keneen muy ki nga xam ne yaa ko ma yaa danga maaseeg moom ki nga mag boo ko war wormaale ki nga xam ne yow yaa ko mag nga yërëm ko ki nga maaseel nee na daf ko da koy jàppee ni sa bopp lépp loo xam ne buñ la ko defoon mu metti la nga la waay fexeel ba bu ko ko def kon teggin googu ci wàllu googu noonu lay taxawee sëñ Tuubaa tënkaat na ko feneen wax ne warxam saxiirahumu waqil kabirahumu waraayi fii kulli xalqin xaqa man xalaqa wax ne na yërëm mag ñi na wekk mag ñi yërëm ndaw ñi te bindeef bu nekk nga sàmmonte ceeg àqi borom bi ko bind damay naa wax wax wax ju yéeme la wax wax la joo xam ne bu ñu ko xalaatee daañ bàyyi xel lu bari ndax sëñ Tuubaa mu ne na yërëm ndaw ñi wekk mag ñi def ne bépp mbindeef foofu dafa génn cadre nit nee na bépp mbindeef bu mën a doon na nga ci sàmmonteeg ak xi suñ borom mi ko bind kon loolu bàyyi ma yi ci lay dugg ndindab yéeg lépp ci lay dugg sëriñ Saalix yàlla ko suñ borom yokk la dinaa koy faral di nettali da daan def bu buy dem ci tool yi oto bi mu war bu dajeeg ay fas wala ay nag danaan borom oto bi na taxaw ndax lii mbakkan la te oto bi weñ la kon kooku mi ngi sàmmonteeg teggin ci suñ borom bi nga xam ne moo bind kon teggin googu nag Sëriñ Tuubaa mel na ne yitte woon na ko ba nahju qadaa il xaaj lépp lu nit ki soxla ci teggin sëñ bi def na ko ci te dafa mel na nit bu dee nite na la muy wut warte weesu lu faj aajom tey ak ëllëg te sëriñ bi nee na mooy yoon bi nga xam ne mooy yoonu fajum aajo teggin di loo xam ne lu bari ay ngëneel jëmmi teggin bari na ay ngëneel mu mel ne sax lu war la ci kenn ku nekk ndax Sëñ Tuubaa bi muy wax téere boobu dafa wax ne qad talabu nazman xawaa taadduba li yataaddabu wa zaaka wajaba kon jëmmi am teggin lu war la ci kenn ku nekk moo xam xam na ko wala xamu ko kon am teggin lu war la bokk na ci ngëneel yi mooy lépp loo xam ne nit da koy wut di ko fàggu di ko denc moo xam alal la ju muy ju muy ju muy remplir compte bancaire am wala ay kër la lu muy yu muy wut lépp lu nit ki mën a fàggu ci àddina jëmbi teggin moo ko gën sëñ Tuubaa moo wax ne wa huwa fi daarayni xayru kanzi kon trésor bi gën trésor bi gën àddina ak àllaaxira mooy teggin loolu la sëñ Tuubaa wax nit itam nit mën naa puukare woo lu ne ak tedd nga am mën na ko feeñalee fu ne ci fi ma bokk ci alal ji ma am xam-xam bi ma am diplôme yi ma am waaye sëñ Tuubaa nee na li gën nag ci nit nit ki di amee tedd nga mooy teggin waxu fi daara ni xayru kanzi wa xayru ma tazza bihi zu izzi lépp borom te tedd nga li muy wutee tedd nga li ci gën mooy teggin kon loolu bokk na ci ngëneel bokk na ci ngëneelu teggin ne dafay leeral xol te xam ngeen ne xol mooy barab bi nga xam ne yonent bi saa sama waxoon na ni yàlla subhaanahu wa taala du xool seeni melo ak seeni am-am waaye mi ngi xool seen xol ak seeni jëf kon xol boobu lépp lu koy leeral di ko sellal te xam ngeen ne ëllëg yowmal qiyaam ku fa yóbbuwul xol bu sell mën naa am ak texe doo nga fa am yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ataa Allaah bi qalbin saliim te xol boobu teggin daf koy leeral kon bokk na ci ngëneel yi kon yu nawirul qalb dafay leeral xol waaye dafay jegeel bokk na ci ngëneel yi mooy dafay jegeel jaam bi àjjana te yaakaar naa nit ki lépp lu koy jegeel àjjana war na koo fonk moom la Sëñ Tuubaa di wax ne bokk na ci njëriñ yi mooy loolu li annahu munawwirul janaani dafay leeral xol kama yuqarribu ilal jinaani ni muy jegeelee nit ki aljanna bokk na ci ngëneel yi mooy ne dafay soreel nit ki safara ndax luy jegeel nit aljanna lu ne da koy soreel safara mafhumul muxaalafa mooy dugg dafay soreel nit ki safara waaye dafay tax say jegeñaale ak ñi ngay jëflanteel mooy say mbokk di say dëkkandoo di say àndandoo ñépp dañ lay sopp loolu teggin daf koy def wa yujibul madha la dal jiiraan yi dafay tax say dëkkandoo ak ñi ngay nekkal dañu lay dañu lay tagg dañ lay sopp dëkkandoo borom xam-xam yi lim ci ñi nga dëkkal juróom-ñaari buntu kër fenk sow kanam ginnaaw ñii ne juróom-ñaar fukk waaye ñi nga bokkal barabu liggéey ba ñi nga àndal ci yoon tukki dañ leen di lim ci dëkkandoo kon dina tax mooy say nawle la fa ngay liggéeyee fa ngay jàngee fa nga dëkk ñëpp daañ la tagg daañ la naw kon loolu bokk na ci ngëneel yi nga xam ne teggin am na ko teggin lu bari melokaan la te suñu borom ci boppam mel na ni moo njëkk a sàmmontee ki teggin ci lu bari ndax ci alquran sëñ xaadim am na lum ci lim muy euh, lu mel ne euh, wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qaala innani min al muslimin wala yastawi al hasanatu wala sayyi'at lu rafet ak lu ñaaw du mës kon looy jëf ca jëfin ko jëfin wu rafet loolu dafay tàbbi ci teggin waaye teggin ci wax alquran daf ko jëfandikoo ndax bi muy wax yi yiy waral nit ki war laabal boppam bi mu ñëwee ci jëf jëflante ak sa soxna def dafa wax ne aw laamastumu nisaa laamastumu nisaa mooy laalante ngeen ak soxna yi ku ne xam ne ne loolu teggin la bi muy wax Isa ibnu Maryam ak waajuram boobu mooy Sayyidatuna Maryam ni leen ñenn ñi yóbbee ci darajay taslis bi sëñ Mamor doon wax léegi suñ borom daf ne kaanaa yàqulaa ni taama nee na Isa ibn Maryam ak waajuram woowu ay nit lañ yoo xam ne daan nañ jëfandikoo aw ñam daan nañ jëfandikoo aw ñam boo ko waxee ku ku xelam gudd dana ci mën a dégg leneen kon loolu teggin la kon suñu borom bëgg na teggin yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ni suñu borom ne bëgg na rafetal ci lépp lu mën a doon ba ci rey sax bëgg na sax kuy rey kuy ren bi sax mu rafetal na muy rendee kon xanaa loolu teggin la ni ñuy rafetalee looy rendi yoon saa salaam mu ne nga ñawal paaka ba ngay jëfandikoo ba nga gaaw a nappal la ngay rey ci feneen mu ne boo doon rey ñaari xar wala wala nag wala lu ko ëpp na nga fexe ba bi ngay rey yi nga reyagut bu ñu gis yi ngay rey ndax loolu daf donte bàyyi ma lañ da ngay gis ne daf daf leen tiital daf leen effrayé bu ñu gisee deret yi kon teggin taxawaay boobu la am ci diine mënu cee ñàkk teggin bari na ay ay xeet ni ñu ko waxee jëfin la mel na ne lépp lu nit di def daf ciy tàbbi ci misaal ba ci ree nu ñuy ree am na teggin sëñ Tuubaa ci masa ci ci ci naaj wax na ko kon nit ki nee na la bu boo bul ree lu dul ci muuñ booy ree na muuñ waaye ree xàqataay bu fu nit toll di dégg sa baat sa baat wala sax nga xàqataan ba jaaxaan loolu xam ngeen ne bokkul ci teggin sëñ Tuubaa bu fekkee da nga toog ak ku la mag booy wax booy booy wax moom na nga tënk wax ji bul nekk di wax wax ju bari rek nu ne nga wax jëmee ni nee na boo nekkee moom na ngay wax wax ju yam wala sax na ngay noppi ba mu sàkkoo wax ak yow bu waxee ak yow tamit nga tontu ko tontu bu toll ne bu méngoo la mu wax ak yow nee bu bu jëfandikoo bu jëflante ak yow jëflante boo xam ne dafa mel ne sax ku la béccingal nee na bu ko ca topp na na nga supporté loolu na nga ko nangu bu juumee bu defee njuumte na nga ko suturaal bañ koo wan ne def nga njuumte lépp looy def ci jataay bi nga toog ak ku la mag nañ ko ci laaj ndigal na nga sàkku ndigal ci moom boo toogee moom itam bu ko di xool yenn xool yi fu ne nga xool ko fa wala nga koy xool ci biir bët te xam ngeen ne loolu taalibe di ko def ak taalibe ñi ngi wax Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine buñ jëmmi ta jëmmi teggin rek akub taalibe la jàngale kon ci gàttal Cheikh Ibrahima Fall jëmmi teggin rek loolu la jàngale xam ngeen ne la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi ak yu bëri yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom da ko digaloon jullit yi ñu koy jëflanteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam te Cheikh Ibrahima Fall ba mu ñëwee loolee ca la daan soññ taalibe yi di leen ci ñaax teggin ci jataay bokk na ci teggini jataay mooy boo ñëwee rek fa jataay bi yam nga toog fa bañ a jéggi ñi euh, ni ñu koy waxee rek jàpp ne fa gën a diggu fa nga yeyoo waaye ginnaaw yéex ngaa ñëw fa nga yem ci jataay bi rek na nga fa toog te xam ngeen ne Serigne Touba bi ma Mor Anta Sali wuy jee boroomam xista boobu amoon ba muy wax ginnaaw bi xaalu lier kan li ab waa bi salaatiini bi mu ñëwee ba ci mbooloo mi dafa toog fa mbooloo mi yem biñ ne koo jege mu rand ci tuuti ne fii baax na ndax sàmmoonte ak teggin boobu teggin ci jataay nekk ci jataay amee wax ja ku ne nga wax ku ne nga wax ak moom fu ne nga coow jëmee fa wala nga yëngal sa jëlm ji bëri ay yëngu bëri ba bëri looy bajantu loolu bokkul ci teggini jotaay teggini ci jotaay tamit ba tey ci nahju qadaa il xaaj mooy boo toogee ay nit ba war a jóg sax nga xool na ngay jóge ndax bu dee barab la bu suuf bu am suuf wala say yére taq dara booy jóg nga def ndànk ba bañ leen cee lor bokk na ci teggini jotaay mooy boo toogee ci mbooloo ngan la waay léeg-léeg sax nga toog ci mbooloo lu mel ne gàmm wala màggal ba yëg ne sonn nga waaye nelaw ci biir nit bokkul ci teggin te mën naa am lu ca dukkee loo xam ne dana nekk ayib ci ki nga xam ne mooy def loolu ngir wax leen ne teggin am na ci lépp lu mën a doon teggin am na sax ba ci ñam jëfandikukaay yonent bi saa sallam moo toogoon nag genn gën a ci saxaaba yi ne ko yaa gulaam wa kul bi yaminika wa kul bi mimma yalika lekkal sa loxo ndeyjoor joor ginnaaw boo tuddee yàlla te lekk li nekk sa kanam waaye Sëriñ Tuubaa wax ne bokk na ci teggi ni lekk nga bañ cee xër ba xam ne yow da ci lekk melo mel melokaan ci lekk boo xam ne ku la ku la xam rek dafay xam ne da nga cee xër Sëriñ Tuubaa nee nañu sori loolu ndax loolu bokk na ci lii wàccee waral nit ñu tuuteel la wala ak suufee sëñ Tuubaa nee kon képp kuy kuy aj yitte ju kawe ci lekk wala ci am pëyam loolu lay luy waral gàcce la rek ak toroxtaange ëllëg kon aw ñam sëñ Tuubaa li ñu ci digal mooy wa xasbuka mimma yuqimu sulba boo jàppee ne aw ñam comme niñ koy waxee dañuy lekk ngir mën a dund waaye dunduñu ngir mën a lekk nee na kon na nga jàpp ne booy jëfandiku danaa war a jëfandiku rek ba sa yaram bi mën a taxaw am kàttan goo mën a dëgërloo ngir mën a jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala sëñ Tuubaa kon nee nañu moytu li ñuy wax ashara mooy li wolof di wax xeeti ñam wala li ñuy tuddee foqal kon loolu bokk na ci teggin yi war a sàmmonte ak lekk bokk na ci teggin gëmm sa bët bañ a xool lu xool luul bañ a xool lu araam bokk na ci teggin mooy bañ a bëri bari kaf ak wax ak mbuusa foo toog rek di wax nit di ree kaf léeg-léeg dana baax yenn saa sama daan na ko def sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadul Xadim waaye bu koy def dafay nekk ci cadre jàngale ak yeete lu mel ne yenn saa salaam ñu gisoon benn màggat ne ko àjjana day màggat du dugg àjjana màggal mi tàmbalee jooy yonent bi saa salaam ne ko àjjana ku fay dugg dañu lay tëggaat ba nga nekk ndaw loolu la ci jublu kon teggin bokk na ci ba tey ba euh, ñàkk maanaam di di bañ a luññutu lu ñu nëbb fu ñu la fekk yaa ngi luññutu nit ñi fu ñu la fekk yaa ngi xool nit ki lu muy def mën naa am sax muy muy nëbb sutura wala awra waaye saa yu nekk rek yaa ngi xër ngir lu ñutu ko ngir xam ko kon Serigne Touba Cheikh na Ahmadou Khadim ngir ñu digal ci wàllu googu mooy ñu bañ a di wuññutu ayib bu nit ndax suñu borom mën ñoo suturaal suñuy ayib bokk na ci mooy jëmmi noppi bañ a bari wax ci Xaadim wax na ko sànq wax wax rek jëmmi jaamu yàlla noppi sëñ Tuubaa yéen saa salaam dafa wax sëñ Tuubaa dafa wax suñu borom ne ko salli alal fasiixi fi sukuuti julli ci yonent bi saa salaam mi gën a éloquent ba pare boole ko ak noppi éloquence séentoo nañ ko léeg-léeg wax ju nee na ci biir noppi mën nga cee am ngërëmal suñu borom. nee na ree ju bari bokkul ci teggin ndax dafay wowal xol bokk na ci teggin fexe ba sàmmante ay ay teggin ci say cër ak ci sa col sëñ Tuubaa ba muy wax nee na fexe ba say cër bul bucci maam bul ko kàcc bul fexe ba lu lu ca warutoon a gis ñu di ko gis mu wax feneen ne lu demee ni sa jur ak li ko di jegeeg moom na a fexe ba di ko muur kon ci jamono toll léeg-léeg ni yenn xale yu góor yi di def sol tubéy mel na dañ ko wàccee ba nga xam ne gis gi rek du rafet waxuma laa jëm bi jëf ci loolu sëñ bu dee rawatina na amatul waaye boo xam ne dafay tax sa jur di feeñ te xam ngeen ne loolu bokk na ci li Sëriñ Tuubaa di wax ci biir natu qadaa il xaaj ne nañ ko moytu kon teggin am na sax ba ci nuyoo li ma waxoon ci jaaj bi ne teggin défin la manière la façon de faire la ba ci nuyoo sax am na teggin alquranul karim suñ borom dafa waxoon ne ku leen nuyu na ko nuyoo mu gën a rafet na mu lay na mu lay nuyoo awul duuxa maanaam ne képp ku lay nuyu na ngeen ko fay nuyoo fay bu gën a rafet boo ko mënoon la nuyoo kon na la nuyoo loolu mooy lan ku la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi amoo àq amoo sañ-sañ ci wax ko waaleykum salaam noppi ginnaaw teg na ci wa rahmatullahi boo ci mënee teg wa barakaatu baax na boo ko ci mënta teg nga delloo ko ko nam la ko joxee woon muy asalaamaaleykum wa rahmatullah su teggee ni nuyoo bokk na ci ne yow mii dox ba ba boo jotee nit yaa ko war a nuyu ki war ci dara bu jotee nit moo ko war a nuyu booy saafonte ak nit nga jox ko sa ñaari loxo ci teggin la bokk boo ko joxee sa loxo bañ koo njëkk xëcc sa loxo lépp ci teggin la bokk kon ci nuyoo sax ndekete am na teggin ci gàttal teggin daal mbokki taalibe yi jëfin la woo xam ne lu nit ki di jëf rek daf ko ca war a sóoraale waaye daf caa war a sàmmoonte ak moom kon cib ànd nit ki ku muy àndal ndax teggin am na ci aha kay lan mooy teggin yi Serigne Touba junju ku ñu war àndal ndax ku jóg rek dañuy ànd ak yow déedéet Serigne Touba daf ne boo bëggee ànd nit bul ànd koo xam ne dafa dafa bëgge lool wala mu iñaan wala tusaaxib in arabta suhba za safahin aw xasadin aw rahba kon képp ku am kañaan wala muy ku ku doyadi nit ku doyadi bul ànd moom bokkul ci teggin toogin sax jataay am na ñun nga war a toogal ndax am na teggin ah kay toogin wi am na teggin waaye ki ngay toogal am na teggin ana kan nga war toogal boo dee toog sëñ Tuubaa ne bul toogal mukk koo xam ne danga ca dolleeku xel wala diine wala tujaalis xayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan taral muraad koy toogal daal boo ci mënta dolleeku sax diine na nga ca mën a dolleekoo xel kon loolu bokk na ci li ñu Sëriñ Tuubaa eh, sant fi may tëjee te muy fu fu jar a am na sax ndeke ci fonk kàddu mooy boo jigéen boo boo boo jigéen wala boo joxante loolu dafa bokk ci mandargay naa fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon te nag dafa mel ne suñu réew yi boo nee nañu daje nañu daje ñetti waxtu trois heures masala ku fa ñëw lu dul trois heures te amu ci ngànt kooku tegginu rendez-vous tegginu ab dige dafa mel ne matalu matalu ko te léegi dañuy wax sax ne heure sénégalais la heure sénégalais la wax te loolu lu doy waar te mel na melokaan woo xam ne suñu autorité yi autorité yi réew mi sax tey lu ci bari boo amee ñoom digee rendez-vous heure ba ñu waroon ñëw ñu baal ma waaye duñ ko ñëw te xam ngeen ne waxtu day lu am solo ci dundum nit ki li tax inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquutan julli suñu borom def ko wutal waxtu mel ne dundum nit ki lépp waxtu la waxtu am solo ba alquran suñu borom indi ko ci lu bari ngir ñaax nit ñi ci solo si waxtu walla fajri wa duha wa layli euh, euh, wa nahaari lu bari mu wax ko wala ba ci wala asri nit ki yenn borom xam-xam yi dañuy wax ne nit day ci jëmm lu néew la fi mu mën a fees waaye ci dundum nit ay waxtu la te te te sa waxtu yooyu saa bu waxtu demee rek jàppal ne am na lenn lu wàññeeku ci yow kon nañ gën a fopp waxtu loo xam lu noonu la a nangu ñu moomale ñu ko kon wax bu dee heure sénégalais mooy fausse rendez-vous mooy lañ la waxoon defoo ko mooy a teew li te bu ñu nangu ko moomale bu fekkee ne Serigne te Cheikh Abdoulaye dafa waxoon ne man Serigne Touba day ñi mu def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu rek lañ ko war a def kenn suñu kàttan te ni sëñ Touba def yonent bi saa sallam muy léppam bu ñu ko defee sëñ Touba muy suñu lépp kon lu mel ne teggin ci waxtu ci ci ci ci wax ci jëfin lépp dinañ sàmmonte ak moom bari wax nu nenu waskurullaha zikran kasiran wax nu nenu waskurullaha ka zikrikum abaakum aw asada zikran sëriñ bi wax nu nenu lépp lu murit di baril baril tudd yàlla ko gën wax ne ama dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yaksiru lépp lu murid di baril saxoo zikkar moo ko gën sëriñ bi xamal nu ne zikkar moomu dafa ami teggin nenu bokk na ci ay tegginam mooy nga toog ci place bu laab julusu abdin fi makanin tahiri bokk na ci it nga jublu xibla mustaqbilal xiblati za tarabuin nga ferenklaayu aw mutawarrikan wala nga sukk kuy comme kuy julli loolu ci ay teggini tudd yàlla la bokk waaye dafa am benn teggin bu mu ca tudd rek boo xam ne moo gën a tax sax ma ma kàddu gi mooy wax gi mu wax ne xeeñ xet gu neex dafa bokk ci ay teggin mu ne tayyiba xatin maanaam nga nekk boroom xet gu neex is la taxlu li tax mu ne sa xet dafa war a neex sax wax na ko mooy ndekete sa digganteeg malayka yi ak jinne yi bokk na ci mooy nga xeeñ xet gu neex ndax dañ lay assister dañuy teewee fooy tuddee yàlla ndax dana is la taxlu majalisal wirdi isa ma tajlu min almalaikati bi ijtimaai wa muminil jinni ala ijtimaai mu ne sa daa war a neex yow miy tudd yàlla ndax jinne yi dañuy ñëw di ko déglu si ak malayka yi dañuy ñëw di ko déglu si kon loolu mooy teggin yi nga xam ne moom laa ci bëggoon a dolliwaale sëriñ bi maa ngi jégalu ci kàddu yi. rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sant sëriñ Touba. di wax jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Khadim. jërëjëf Cheikh Ahmadou Khadim. yal nañu ko yàlla fayal. amiin ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp loolu si jigéen mag ak ndaw xam naa incha allah kàddu yu gàtt lay doon rek ndax liñ fi waroon a wax lépp wax nañ ci dafay baa ngi bëgg a yàgg daanaka takkusaan bi soreetul waaye dañuy tënk rek kàddu yu ñaan lay doon ak sant rek Euh, sant yàlla bu baax ñu mayoon ñu teewoon fii daaw ci ak mbaaxam may ñu teewaat ren moom lañ koy santee ñaan may ko mu may ñu teewaat at yu baree baree baree bari ànd ak tal ak mucc ak ak yokk ci am na ñu ko teewoon daaw am na ko teewoon daaw teewee ko ren kon bu yàlla bu ñu yàlla mayee ñu teewu daaw teewu ren tal ko ci sant yàlla ñaan ñu ay at yu baree baree leen ndokkeel yéen ñëpp nag te bu ñu waxee ñu ko teewoon daaw teewuñ ko bala ñoo sore ci wax ci dañuy am ñu fàttaliku fàttaliku leen ñaanal leen delloo leen hommage ñaan yàlla tax ci ba seen barke yàlla yaa ngi am seen leer kañ koy njëkkee mooy Cheikh Sidil Mokhtar radiyallahu taala anhu nag ni daaw mi fi nekk nekk ñun te moo joxe woon digal ci bii sëñ sëñ euh, Modou Abdoulaye ji na ko sànq ko xale bi ko mbokk yi kat euh, xalaatee wax ñu ko may kat yoonu kat dafa am na muy doxee yoonu ndigal la wala ci kenn tax dara da nga cay am digal nañ dem ci fi nekkal Serigne Touba kii borom yoon bi ñu yëgal ko ko ba xam lu mu ciy wax bu ne nañ ko def ñu def ko bu ne nañ ko bàyyi ñu bàyyi bu ne ko def ko ñu def ko da nga ko waxee yàlla dogal tam te ci la ñuy jógee itam rendre hommage suñu Cheikh Bara Mathily mi dem ba ci dem ndax ci moom lañ jaaree ñu wax na ko dama ko ne sëñ bi du ma ko mën def direct mais danaa jox ko ko jëlee muy sëñ Cheikh ko waxee bu joxee ci ndigal rafetlu ko ñaan ci ba ren ji def naa ne mooy seen tëri émission bi que juróom-ñaareelu Cheikh Sidi Mokhtar moo kon damay wax ne bi édition si Sidi Mokhtar bu a déggee ndax mooy juróom-ñaareelu at mooy juróom-ñaareelu yoon ci a liggéey te moo joxoon liggéey moo ñaanoon làq ma ko waxee bi ma ko waxee bi may jox ko kër gi moom laa woo pour ñu ñëw daal ñoom sëriñ bi waxtaan ak ñoom ba dinañ seen bi dama ko waxee woon sëriñ bi joxe ko ñaan ci ñuy fàttali ko sëriñ Abdou Fatah bu suñu Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñaan yàlla tas suñu Mbacke yàlla yokk koy leer ak rakam sëriñ Aliou Mbacke ak rakam ko sëriñ Abdoul Aziz Mbacke bu Cheikh yi ñu ko def yëpp moom ñoo ko bokkoon mm-hmm. sëriñ Maam Mor moo ko fàtte sànq ñu ko yi ñu ko def yëpp moom ñoo koy bokk ñoom Pape ñun ba mu jeex ba ñaan mu ànd ak ñu ba ci kër ga te taxawaay bu rafet lool te on a jël carte daa ma ëpp naa def koo nekk moom ko jël carte moom tam gis nga ni yàlla ñëw cee dogalam dañ koy fàttali ñaan yàlla yërëm ko xarit ko ajeen di gën a kowee wala ko bàyyam dafa dem ak maamam yi tëddee noonu ko Serigne Babacar Dieng ñëpp xam nañ ne bokk na ci ñu sos lii Serigne Babacar Dieng yéen ñëpp xam ngeen coono bi ñu ci rànd hmm. ni mu ci taxawee bu mu jàll ñu ca coono ñu ngi fàttali bu baax di ko ñaanal yàlla taas ñu ci barkeem te yàlla xare ko àjjana di gën a ko wee di nuyu alay sëriñ kan suñu mun kan ñu doon ko xam ne bàyyi sëriñ kan moom moom ñu koy bokk doon mag mu baax doon mag mu am xel doon mag am taali bi mag mu weex te ba xamoon lu bari dañu ko nëbbu moom it ñoom moo ko daan bokk yàlla ñëw ci ak coobareem am na suñu mbokk yu baax ñu fi jógee itam donte daawuñu teew waaye ñoom ñoom ñoom ñoom bokk bokk gi ñoom moom bokk réew mi ñoom moom bokk diine gi te ci njëkk mooy Cheikh Amadou Tidiane Sy al maktuum moom itam gannaaw lu de wàcc liggéey te mbokk la xarit la ci Sëñ Fàllu xarit la ci yoonu Murid Sëñ Abdul Aziz Al Amin rakam moom itam la xarit la wëllëre la man ni personnellement dafa nekkoon euh, euh, suñu wëllëre lool di suñu xarit lool moom itam seen bëtt jamono ci suñu borom yow coobaree diggante magam daanaka ay weer yu néew la ngeen Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum ak sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si diggante ko gàtt la te moom ñu koy fàttali ko tey yàlla yàlla yokk leen leer xam leen ajo yi gën a koy su suñu mbay boo xam te barki démb la wàcc liggéey muy sëñ xam satu Mbàkke maam Thierno itam barki démb la def naa suba sax rek ko ñaanal si daal non itam doon bu baax doon borom xam-xam doon liggéeykat doon borom fulla doon koo xam sémbol la ci réew dinaa ne doon maam Thierno taal bi si Ibrahima Diop eh, eh, saam boobu rek dee yoon moom doon bu baax jege woon sëñ Fallou sëñ Abdou Lahad Cheikh Moustapha ñoom lool doon seen conseiller bu wóor woon ay xalaatam ak xam-xamam bu wér ak boobu nag mu ngi koy fàttali ko neex yàlla ñu ngi tas ci barkeel te àjjana yi gën a koy di leen sant yéen ñëpp nag ñu tudd ñu ma tudd ñëpp rek nañ leen dëxan ci ñooñu di sant ñu jël kàddu ñëpp sëriñ Xaadim discours ba matale na ci arab yi mu defee wolof yi di sant soxna si soxna Soufaal discours bi mu def en anglais ak en fran en français matale ni sëkk macha allah te li ma li ci gën a kéemal dafa def cent ak cent boo xam ne ku ko li nga xam ne professeur yi wax rafet na lool macha allah anglais beeg français bi kon lii lépp day wane rek sëñ Tuubaa am na lépp di sant sëñ Mamor moom itam ci sensibilisation bi ak waxtu am solo bi li lépp damaa xam rek da ngeen a bëgg a dégg sama kàddu ngir bëgg ak ngir cofeel rek waaye jëru ko woon li ñu fi wax mat na sëkk maa ngi wax sëñ Mamor ci li ñuy wax sëriñ bi ma bi dañuy wax ne dafa am yu mucc yu ko kenn fekkul moom borom Tuubaa wax na Gabon yi ñu wax ne sëñ tuwaa rek moo mos a mucc ci xëbal bi ci tubaab bi mucc ci jay bi ci kajoor mucc ci diingat bi ci gànnaar xëbal bu ci tubaab bi sëñ tubaab bi fu ñu mës ne nuus jàpp la bu leen neexee bala ñuy àgg port ba waxuma la dugg ci bato mais bala ñuy àgg port ba rek nga def lañ bëgg mbaa ñu def lañ néew kenn amu ci werante du ci Sénégal ak bitim Sénégal ak ku ñu mës a teg loxo buñ nga wéet ak ñoom buñ déparé yow fii bala ñuy àgg port ba ñu lay dugal nga nga napp yow da nga def lañ nga wax nangu ko mbaa ñu def lañ néew sëriñ tubaab rek mas tàbbi seen loxo juróom ñetti at wala lu manqué tuuti ñu def lu ne te wax na ko maam Cerno radiyallaahu anhu ñëwee ne ko Ibrahima da war ngeen a sant yàlla ndax fii ñu ñëw de dem nañ ba ñëw noon bi lu ne jéem na ko waaye néew na um lu ne jéem na ko néew na um kon comme comme comme osare tuwaay mos rek loxo rek bala ñu àgg ak yow problème nga ci yow da wax def lañ bëgg wax ko mbaa ñu mbaa ñu def képp ma si topp saa bi seen loxo juróom ñetti at yu manqué tuuti dellu si dellu si di dund maa ngi koy wax say membre sànq sooxul amatul léegi bàyyiwul dem doon kenn du moom kon ku ñu ne sëñ bi nga mbaa léegi sëñ bi ña ngi lay nax waaw kon nag sëñ Tuubaa kenn du moom yàlla nañu ko yàlla fayal te jërëjëf fi moom te sëñ Fallou Mbacke dana rek jërëjëf fi moom ndokki lu jërëjëf fi moom jërëjëf sëñ Tuubaa jërëjëf mat na ko lool kon yéen ñi initié yi dañu leen ci sant leen ci gërëm kon sëñ Tuubaa rek mucc ci xëbal bi ci tubaab bi sëñ Tuubaa rek mucc ci jay bi ci Kajoor Kajoor suñuy mbokk lañ fa lañ dëkk fa lañ dëkk waaye dañuy wax ne ku ñu mas na yow rek bu yàggee nga ne ah, loo woyof woyof bu ñu la jayee rek bu yàggee nga jayoo sëriñ bi rek ci mën a mu mos a mucc lu ñu mos a yëngu jay ba ci kayoor lu ñu mos a yëngati lu ñu mos a yëngati lu ñu mos a dara du weesu dara jekki kaw ni ya abdallahi xadima abdi ibni abdillah sama dara ma jaamu yàlla rek ñu liggéeyal jaamu yàlla ba ñu doon abdallahi sallallahu alayhi wa sallam dara jekki kaw ni ya abdallahi xadima abdi ibni bi ñëwul mu ne beneen ba mooy sëriñ Tuubaa rek mos a mucc ci Serigne Touba rek mos a mucc ci diingat bi ci gànnaar sëñ Mamadou ñu ne ko sànq te émission bi tawféex da ci am ndax tey la ajjuma te ajjuma sallallahu alayhi wa sallam ne woon na xayru yow min talaat fii chams bala maa àgg ci loolu sax cant gi dama ci jokkaale sëñ Sow itam oustaz Mouhamadul Amin Sow waxtaan bi am na solo lool doy na sëkk matériel na sëkk lii may wax damay wax ne dama ko ci barkeeloo rek waaye mënoon nañoo ñaan ndax ndénkaane yi leer na ànd naag méthode ànd naag pédagogie ànd naag xam-xam ànd naag clarté kon dañ ko ci sant bu baax a baax sëriñ Sow jërëjëf yal na yàlla barkeel sa xam-xam te guddal sa fan kon sëriñ bi rek mucc ci xëbal bi ci tubaab bi sëriñ bi rek mucc ci jay bi ci kajoor kuñ mës a jay ku nekk rek bu yàggee nga jayoo te boo jayoo bu yàggee rek dana la am lu mu la jural lu dul noona sëriñ bi rek ci mës a mucc lu ñu ko yëkk yëkkati lu ñu ko topp topp lu ñu ko roos toy mooy rek darajat yi kaw ni abdullahi xadima abdi ibni abdullahi man dana xayra xadimil mustafa fa innani axdimuhu bi ku ma yaakaar lenn du ku ab jaamu yàlla buy liggéeyal yonent bi rek du ma lenn lu dul loolu ak lam nekk lépp ak lam doon lépp ñetteel ba moom rek mos a mucc ci jey bi ci ga euh, bi ci gànnaar ndax gànnaar ku ñu mos a ju diingat rek nërmeel la te sëñ Maamar wax na ko te ga may wax ne kon tawfeex dafa feeñaat ci bis bi mooy ajjuma la te sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne xayru yawmin talaat fii shams mooy bisu ajjuma bis bu bis bu gën ci bis jant bi mooy bisu ajjuma ci weeru shawaal la shawal ci la wérdam bi baax bi feeñoon ci gànnaar ci la wérdul bi ci la ko suñu tuwi jote woon ci gànnaar ci weeru shawal bii la kon weeru correct correct bi kon taw fee feeñoon na ci bis bi kon bisu ajjuma la weeru shawal la am na samin shawal wala rabi shawal wala xamin shawal lu ci mën defee weeru shawal daal weeru correct gi ci la suñu tuwi jote woon wérd la gis sallallahu alayhi wa sallam jahran mushafahatan la wax géntu ko imaginer wu ko da koo gis mu sakk ko wérd bi radiyallahu taala kon taw fee feeñoon na ci bis bi kon dañ ciy santar yàlla bu baax a baax di santaan nag mbokk yi fi teew yëpp lim nañ leen sànq lim nañ sëñ Mamor moom sëñ Xaadim moom sëñ Ibra Mbakke lim nañ sëñ Koso moom ma xam ñooy yoon wi waaw sëñ Saliou Fall mooy xoromu yoon wi ak sëriñ Jiili ak ñi ñu àndal ñëpp rek ak suñu mbokk yi fi teew na taxawaay Mët Caan mooy jëwriñ ji moom <laughs> sëñ dama koy wax ne bu li ñu fi def yoon lañ koy fi teraanga yu bari yoor sëñ Diouf sëñ Goma nga nekkal ko fi sànq ñëw na fi tam suba ba daf fekk boobu ñëwaguñ ñëw na fi indi fi teraanga yu bari lool dama koy nag léegi yow bu ñëwee fi yow la fi ñëwal ndax yaa fi yaa fi sunu jëwriñ yaa ñu fi nekkal kon ci foofu la ñuy jaare xam ne mën na maa wax ci ndax fii kër sëñ Fallou kon kër murid yëpp ndax sëñ Fallou daan wax ne maay Sénégal hmm. waxu doon sax ne maay murid maay Sénégal la wax kon Sénégal gépp la jaboote kon këram kërug Sénégal la kon ci turu borom kër gi di dañ leen di tarax it leen di dalal jàmm gannaaw bu ma bokkee ci yéen bu noppi nag damay delluwaat nag nekk ndawal suñu ebo di leen dawal jàmm di leen ci turu kër sañ fàllu yëpp sañ ebo bu ñu ko tuddee itam foog ñu fàtte ko magam yu baax yi ko ci woon di Cheikh Amadou Moustapha xam ne moom a sori ndax moom ñëpp dañoo xam sama digg ak moom waaye damay wax ne nag gi mu ci def nga xam ne ab taari bi jënd kër gi def ko addi suñu fàllu bu ne woon kenn du

ak ñi ak ñi topp ak ñañ fa fekk ñañ fa fekk ñëpp ñaan yàlla tax seen barke tey ñaanal Cheikh Abou Baraka mii fi nekk di sëñ Abou yàlla yàggal ko fi yàlla yàggal ko fi yàlla wéral ko ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg ko ci moom waaw ndax moom damay wax ne kër sëriñ Touba yëpp ko bàyyi faale waaye kër sëriñ Fall damay fi ne moo ci tuddee sëriñ Abou suñu xabaan rek mu kon moom rek dañuy wax ne kon ñëpp ko bàyyi faale waa ñu ñoo ci rawati te nag wax nañ fii nax ji xadaa alxaaj waaye damay wax ne yoonu murit bu fekkee ne euh, teggin di ak yar bi sëñ bi jàngale nax ji mooy théorie bi bi Ibrahima mooy pratique bi radiyallaahu taala anhu waaw ah, loolu moom defe naa ne mën nañ ko wax sans mu jàmmale waaw waaw jërëjëf jërëjëf lu dul mu jàmmale waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw sëñ Ba jërëjëf jërëjëf jërëjëf barakallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf loolu moom defe naa ne ñëpp xam nañ te ku ne xam na sëriñ Fallou ak Cheikh Ibra mu demee woon ni mu demee woon ak gaa yu baax yëpp waaye ni mu demee woon ak Cheikh bëri dégg ba mu wax ne ñett ñett ñett la ci ñaan ñett la ci ñee ak taalib bi Cheikh suuf suuf la ci ñee moom sëriñ ak taalib bi Cheikh Ibra la ci ñee radiyallahu anhu ab sëriñ borom borom baraag bi borom baraag bi mooy kon loolu waree digganteem ak moom muy xóot yu sori yu bari yoo xam ne mënuñ ci mënuñ ci am na ci loo xam ne néexute wax ci mbooloo bokk na ci li ci mën a wax ci mbooloo te tam kéemaane mooy dañoo wax bi wàcc liggéey am 1930 ñu ko yóbboo Touba Cheikh Moussa Karim mi nga xam moo fi sëñ Touba dafa wax ne nañ ko yóbbu kër sëñ Fallou lu am na parce que ñu bari ci sëñ bi wax nañ ma ne noonu la demee kër sëñ Fallou lañ ko yóbbu ba waajal ko mu nekk door ko yóbbu loolu loolu loolu xool la loolu tasal am yeneen yu ci xew yoo xam di waxe mbool mu ne su ko wax ci mbooloo kon dañuy sant yàlla bu baax a baax. waaw waaw di sant presse bi suñ <laughs> maam Mor di sant presse bi. li ko jaara ci yow. gis nañ fi sànq sa mbokk eh, Ibra Ibra Thioune Madior ak waa Lamp Fall di sant waa Touba TV ak waa RTS sëñ Charles la ñu nii ak presse bi fi nekk yëpp ndax presse bi tam mënuñu fi ñàkk ndax ñooy tax li ñuy def ñu koy jottali ndax li ñu fi wax damay wax ne seen mbooloo mi itam di mi itam nag mbooloo mi mbooloo mi saytu euh, journée bi sëñ Ousmane a bokk ci ak sëñ Xaadim ñi ngi jëwriñ ji sëñ Mamor waaye bay sëñ Xaadim rek moom tamit te dooma di bàyyi suñu mu sàkkane woon ne dooma di bàyyi kii du keneen kon sëñ Mamor ñu ngi lay sant bu baax di sant sëñ Koso di sant mbokk yi teew yëpp soxna yaaram ak ñi teew ñëpp di sant comité bi itam ñu koy piloté ndax lu am solo la seen mbooloo mi kaar mbooloo mën na ko gën a bari mais du ko ëpp qualité te li am solo ci mbir nag mooy qualité coow bari léeg rëngu bu bari léeg folklore bi amu ci solo li am solo mooy qualité Serigne Touba ba muy commencé kenn la woon benn Serigne benn mënut a njëkk ak monsieur Ahmadou Bamba waaye da doon nitu qualité. ba muy wax ne yàlla nee na ma rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi tarsi faqat muy révolution déclaration la defoon ci Mbàkke Kajoor boobu moom képp la yonent bi nee na ma mu ndikkati lu garaaw wax nga ko sànq booba nga léegi déggatuñ keneen ku ne yonent bi nee na ma chaafahan yi dama yow la wax yonent bi man ne ma rabbi asxaabaka bil himma bi darsi faqat sa gaay sa sa sa gaay yi nga nekkal na nga leen na nga leen yar ci yitte ak bëgg lu koy mais bu leen yar ci jàng kepp jàng kepp donc kon da nga leen yar ci jàng ak leneen wala tarbi bi dar si faqat faqat boobu ñu bari dañ koy fàtte te loo am solo la waaye bu leen yar ci jàng kepp kon jàng da ciy ànd mais jàng day ànd ak leneen am na loo xam ne du nekk ci téere yi moo tax mu ne xafisuma siina ani dafatiri wala tekuna xidmati bi fatiri radiyallahu anhu am na loo xam ne nekk ci téere yi sëriñ Bachirou Mbacké radiyallahu ñett na ko ci maame gaa yu muy jël njàppe bi di ci barkeelu sëñ bi ne yëpp yéemu nañ ci Ibrahima Fall de ndax lii muy def de gis ko ci téere yi gis ko ci téere yi xam nga mu ko xamee de waaye gis ko ci téere yi kon léegi am na leen lu ñu xam lu moo tax déclaration Mbacke Kajoor boobu sëriñ Bassirou Mbacke ne kaana faatihata ahdin jadid ba bu defee dafa am une nouvelle bu ubbi parce que kenn mësta dégg loolu bu jàngale yàgg ne yonent bi nee na ma xam nga lu garaaw a garaaw te ñam nekkal doom yi ne di ay jàngkat te loolu xew fi boobu xamuñu ko boo xam yow xam nañ fi nga juddoo xam fi nga yaroo xam fi nga ci saaxeet xam say mbokk xam sa waajur xam sa lépp te bi fi sa waajur nekkee mosoo yëngal mosoo yëkkati a yëkkati a teg dara te ci gannaawam rek te fekk na fekk na mu fees dell yi mu doon def moom ba mu mel na mel waaye warmal na bi fi Maam Mor yëngal lenn mosut a def lenn dafa nekk ci ronam rek ba fi jógee nag ba mu toxal tuuti la def déclaration bu garaaw boobu ci Mbàkke Kajoor shaafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ma rabbi ashaabaka bil himma wala turabbihim bi das faqat yonente bi tuñante ne man mu shaafaha il a parlé avec moi oralement bu ngeen ko traduire ngeen wax ne ma yaral sa gars yi ci yitte waaye ba dañu def jàng kese mu ngi doy waar dañu xamuñu loolu une déclaration révolutionnaire moo tax sëñ Bachir ba mu koy melal mu ne bu ma ko waxee nag zahabal jullu wa baqiya al qullu li ëppoon ci gars yi dañoo dem parce que xam ñu loolu daal xam mooy xaala jiw ne nga nen masala bi xilaaf ixtilaaf nangam nangam rawa an fulaan riwaaya yooyu lañ xam waaye nag yonent bi nee na ma nag moom loolu benn affaire waaye teewul ma ma ngay ma ngay ma ngay ma boobu taalif xoqal bu ko aw di wax gaa yu baax di ni ñu demee woon ba dégg ngeen bu Cheikh Ibrahima Fall ñëwee ndam ne am njàng indi ma fi ay téere indi ma loolu naa ko dégg naa ñu ko daan wax waaye leneen na ko fi indi moo tax suñu Fallou Mbacke daan wax nañ nañ sant ci tee naat bee naaw nañ sant ci tee naat bee naaw ndax fa sëñ Touba dañ laa ne dafa ne sama yoon bi am na cat li cat li mooy li ciy taxaraw mu ne su ko wax sama romb gor li ciy taxaraw mu ne su ko wax sama romb gor loolu nag ka ñëw ko wane ko ñëpp ko amal njukkal ndax bu njëkk sëriñ bu ma saan toog ba ba jàpp rek borom xam-xam la ku baax la bu sell la borom xam-xam la bu toogee ñu toogal moom bu léeg-léeg muy julli kenn ñëw ne yaa ko mag mu topp nga mu jox la nga jiite léeg-léeg bu wax nga dagg ko mais pratique yooyu yëpp ak adab yooyu nga doon wax sëriñ bi bu yoonam murid bi la ko fa indi bu ñu tegee laytaay ñu toog ci léeg-léeg day ñuy xool sëriñ ma gis la wala ma góof la bu demee ba sore rek am nu mu def ak ne la ñu ne ñu ne nañ ñaqaan am kuy a ne ko bisimilah moom ko ñëw bëgg la bàyyi na julli ndax booba ña fa nekk ñëpp matul ilimaan waaye sëñ bi lim yor raw na ilimaan léegi-léeg kenn ki ñëw kenn di ñëw jéem a jiite bi da lay guuf rek dem ak yow ba ci gannaaw kër gi rek mu am lu mu def ak yow ñu ne kii kenn du ko jiite ba yëf yi te xam na mag dag da nga jaar ak moom foo xam ne bu ñëwee ko nettali du ko nettali <laughs> la kii kenn du ko jiite ba mujj nag am ñu koy kaas nag dangam dangam si am mu ngoog mu ngoog lépp euh, euh, yar bee tax teggit yar du ma ca àgg teggit yar moom itam du ko def ci seen kanam da lay guuf ba nga génn mu def mu am dafa yow foofu nee na kii kenn du ko jiite ba am mag ñu ko kaas waxee sikki sàkku da ngeen war a wax sëñ bii nangam xam na ko Ibra Fall mii ni muy def nangam nangam ñu ne waaw danañ ko yegg bu ñu ko moom Cheikh ne ko defal li ngay def rek ñun dañ dañuy mag waaye ko mënoon di ko def nii nga koy defee defal loolu lu loolu ngay def rek ba mujj ñu dem a dem a dem ba de xajatul Mbàkke ba dem sëñ ci Salaam waaw bañ na ko sa dof bi ngeen bal la ci waxee nii li muy def xamuñu ko lii réer xamuñu ci téere nangam nangam ba ngeen xamee histoire bi mu ànd ak moom ngeen dem sañ ci Daaru ak gannaaw Daaru ko kon mooy koo xam ne dafa war a yoon wi dafa wax ne bu la tuddee théorie bi maanaam Cheikh Ibra Fall mooy pratique bi ndax sëñ bi loolu mu wax ne lii tax a raw ci yoon bi mënees ko wax sa moroom gor kay warumaal ma kay wuyul sama sant loo jël jox ma loo am jox xam wax lu ma def nga def ko yaay mel noo xam ne da ngay doy nit ki mu ñëw def ko waaye dama koy defee nag de foog ñu wan ko ko parce que su fee am mosu fee am kon ka ko wane nag wane ne ko kooko sant yàlla bu am na la ma waxoon fii daaw ba sëñ bi xaalu woon ca lu ñu waxoon daaw ba bi xaalu woon ca am na lu ma waxoon fii daaw ba nga xawoon caa kii sax waaw ba ñu waxee ne dañoo fekk sëriñ bi radiyallahu anhu muy wax ne Ibra Fall cey mën ak Ibra Fall Ibra Fall de gërëm naa ko Ibra Fall de gërëm naa ko fekk ñu ne sëñ Mbàkke Buso di di dugg si mag mag ñu baax ñi dañoo amul yar li sëñ bi doon wax dañaan tekk ba sëñ bi dal sëñ bi léeg-léeg doon am jamono yi mel dem dafa tàng ñoo tekk bu mu dabba sëñ a xam li bu ñu mënoon a xam li mu def ba am loolu mu am ndaxte léegi yàlla ñu am ko mu mu leen damaa teg fa ma yàlla teg damaa teg ma yàlla teg waaw dama waaw dama teg fa ma yàlla teg ma ne nag ku xam fu sëñ fu yàlla teg sëñ Tuubaa bu nekk mën ko faa teg kooku benn affaire la d'abord li dëkk def mooy xam fu ko yàlla teg nga xam ko bu nekk mën ko faa teg nag ba mu nangu neen teg nga ko fa kooku beneen mbir la kon nga xam ne rek dama bëgg a wax rek li ñuy def lu rëy la loo xam ne mëtul xeet waaw ah, waaw jërëjëf sëñ Baye Fall moom jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw baax na jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw waaw kon nag gën a ñëw nekk Baye Fall kon waa kay jërëjëf ah, dama xam ne ab Baye Fall nga. waaw jërëjëf jërëjëf <laughs> waaw waaw ndax bu fekkee ne Baye Fall mooy que teg bi fa ko yàlla teg. kon kon ñun ñëpp yàlla nekk Baye Fall. ndax ndax ndax yombut nag. yombut nag. yoo ne Baye du du folklore. ba ki dem rek maa koy wax ay mbokk ay mbokk ci vingt et un vingt un ñaar ñaar fukki fani koor bi am réew bu ñu nekkoon ñu ko fee màggal ma leen wax nag nañu bàyyi xel Baye Fall gi du folklore Baye Fall du sol ay sagar Baye Fall du sëqal ay bopp ko yuuxoo ko dégg Baye Fall conception la ak dégg li sëriñ bi ma ne leen Cheikh lii tax a xam adduna lépp ci daayar am na ko garmi la juñ nga ko sànq borom xam-xam la borom alal la borom yi bokk la kon loolu lépp lu ci nekk rek ba dana tax nit xam adduna nit xam nit kon ku koy roy ku ne da nga xam ne war a mel su caagee ne fi dégg ak dégg la am ci sëñ bi jàppe ko noonu comme ni ko mag ñu baax ñëpp nekkee woon waaye du caagee nag ak ay ab yuuxulaak folklore ak rastaak déedéet message la damay wax ne mu sëqal bopp bi koy def am na lu taxoon taxan baag lam daan yenoog lam daan defee lépp la mu daan sol message la ndax booba àdduna fi ñu bëgg àdduna rawatina sama mbokk yi xam ne ñoo naa ci jël na nga baxawu baxa rombal nangam nangam sàmba sembe démystifier loolu lépp ñëw jël jël ay morceau jaxase ko loolu message la parce que li gën a gaawal ci mooy agré te loolu loolu dindi ci nit ñi xam nga kooku loolu ay message la loolu lépp ñu bàyyi xel pour bañ a xaar xaababal ndax waxtu waa ngi jege rek dañuy sant ñëpp rek sant ñu fi jël kàddu ñëpp ndax daal pour wan leen rek ne yëf yi bis yëfi qualité la te defe naa ne bu ñu ko waajalee tey ba ba presse bi ngeen gën cee jàpp ñu gën koo yaatal mën naa weesu fii ndax bari na fu ñuy woote dafa yëngu ko coow te lii ngeen def ëpp ko qualité lii ngeen def def qualité te qualité rek am solo ndax sallallahu alayhi wa sallam ba muy doo tàmbali kenn la woon benn muslim képp la woon sallallahu alayhi muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ga la ci xale ñëw Aboubacar ñëw ñeneen ñëw muy dox muy dox ba àgg fi mag yoonu mbir mi dugg Sëñ Tuubaa woote moom dong la woon xam Cheikh Abdoulahi wa Xadim Rasul képp la woon waaye woote wa woote baat kon du woon mbooloo woote baat nangu ñuy wuy si di wuy si di wuy si di wuy si mu àgg fi mag kon yéen itam li ngeen def ak ñi ngeen koy defee xam ne lu war ñëpp muy sant Sëñ Tuubaa ba leen ko yàkkam da ngeen dox ci doxin bi rek te yaatal ko ba ñëpp bokk ci rek ndax ñu bare bare bi ñu yóbbante danañ fi teew waaye xañ na doxin bi ak tàmbali gi eh, eh, tax mu toll fii waaye dana ko weesu incha allah ñuy sant bu baax a baax nag di tëj nag di ñaanal Cheikh sëñ Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk di këram njaboot gi di njabootam nañ def woon ca Cheikh Sidil Mokhtar mu joxe ci ndigal bi ma toogaatee noonu lañ defaat ak gaañ booba maa ngi woowoon sëñ Cheikh Bara mi ma wax sànq ñu ngi koy ndokkee sëñ ñaar yàlla xare ko àjjana yàlla yërëm ko wane wane bi ak maamam yu baax ya ak yu baax ya noonu laa defaat ren itam bi ñu ñëwee kii sëñ Mouhamadou Mountakha ma jokkoog sëriñ Cheikh Mbacke Abdou Latif ne ko nag dafa am mbooloo ñu expliqué ko na man expliqué woon sëñ Cheikh Bara ñu dem sëñ bi recevoir leen wax ak ñoom dañ wax joxaat leen ci ndigal loolu moo tax ñu defar mais ñi këddee yi sëñ Touba te sëñ Touba kenn la ku ko fi nekkal nag yow sëñ Touba lii dañ koy def ngir sant sëñ Touba sëñ Sidi Maxtar joxe woon ci ndigal joxe woon ci bis sax Cheikh Modou Mountakha mooy sëñ Touba fi ne lu mu ci wax ñu def ko bu nee nañ ko bàyyi ñu bàyyi ko bu nee nañ ko def dañ ko def bu nee nañ ko taxal ñu taxal ko bu nee nañ ko defee dañu def ko bañ demee mooy nañ ko defee nañ ko daan defee kon nag loolu moo waral jataay bi man itam nag ñu ñëw rek di seen mbokku taalibe bi ngeen gën leen a bëgg leen a encouragé rek ngeen jàpp ko te xam ne lu am solo la loo xam ne yoon yëpp ngeen koy defal te yoon yëpp la wax di sant sama mbokk yu baax yi nga xam ne ñu ngi nekk ci ak sama mbokki Baay Faal yi yi ak mbokki taalibe bi yëpp nag ak journaliste yi presse bi tam ñu leen sant bu baax a baax di sant di sant comité de pilotage bi di sant ñëpp rek góor ñeeg jigéen ñeek mag ak ndaw te ñaan ñu fekke ko at yu bari lool mu ànd ak jàmm ak mucc ak te nawet bi ñu jublu yàlla def ko nawetu jàmm ndax Sénégal réewu agricole la dafa ko nawetu jàmm ko sëñ Fall daan ñaan ñaan rek mu bañ a sëcc bañ a coos bañ a sëcc bañ a coos maanaam bañ a teel bu noppi du sotti wala mu yéex gaaw a taxaw kon yàlla na yàlla na colee te te te barkeel sëñ Fall daan def buy ñaan ci nawet bi booba xam nga dañuy liggéey jumaa ji liggéey métti buy ñaan ci jiw bi danaan lii ñuy lii ñuy bëgg a jiw bu fekkee ne dañ koy liggéey ngir sëñ Touba yàlla na barkeel te barkeel leen tool yëpp su fekkee ne sëñ Touba taxul nag yàlla mel na ku ñuy xorom waaye kenn mën a gis fu ñuy jiyee xorom sax waaye kenn mës a gis tam nawet bu gàntu di nekku sëñ Fallou waaw ndax yéen a jaay réyoon si nit kon yéen a jooje nag yàlla nañ ko yàlla rafaatale yàlla def jàmm ci réew mi yàlla def fi xeewal def fi mucc def fi wér def fi jàmm te ci année électorale lañ nekk yàlla def ñu delloo si xel yi tam nag rek te xam ne adabul mardi bii sëñ bi wax ndax loolu rek mooy élément yi génne école sëñ Tuubaa bi nga xam ne modèle la ci àdduna si ndax sëñ Tuubaa moo wax ne yàlla ci barkeem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal na ma école daara moom jàngukaay boo xam ne ca la réer dañee ca la coonoy dañee ca la ab coono dañee bil Mustafa lii banal qudduusu madrasatan biha yazulu al ada wal jahlu wal kabadu te al ada wal jahl wal kabad da ngay wax rek mooy sous développement mooy maladie ignorance pauvreté yi nga xam ne mooy caractériser le sous-développement dëkk bu demee ba ñàkkatul ñëpp wér ak jàmm ñëpp lu añ fajoo am ay xéewal boobu dëkk développé suñ too wax ne sama daara sama école bii mu yàlla def na ci barke bi yonent bi ba fa la koy jàpp jour di haaje jourul ada wal jahlu wal kabadu te élément yi mu wax ne moo koy moo bu ci jaaree am ko mooy lii ñu doon lii ñu doon tey benn la ci mooy boo boo amee iman ak islam ihsan bi nga xam ne mooy mooy diine ji dañ cey boole al kasbul xalaal di sàkkru lew boole ca al adabul mardu yi boole ca eh, ihsaan bi nga xam ne moom ca élément yi bëri al kas al ilmu naafi waaw dañ cey boole al kas kasbul xalaal al ilmu naafi al adabul mardu yi ñetti élément yi la cay boole kon boo jëlee islam bi ak iman ak islam ak ihsaan nga xam moo fi nekkoon mooy diine ji da ngay nekk suufi yi boo xam ne da ngay da ngay mais doo nekk suufi boo xam ne da ngay nekk sa tour d'ivoire rek di di théorie déedéet da ngay yëg dangay liggéey di jaxase suuf si di maçon di mécanique di administrateur di économiste di avocat di def lépp liggéey àdduna mooy ko tudd alkasbul xalaal di journaliste nekk ci presse beeg fépp loolu mooy alkasbul xalaal da ngay wut lu lu lew sàkk lu lew mooy production da ngay nekk un un quelqu'un un homme de développement un producteur kasbul xalaal lu lew soo fa jógee ngay ngay jëfandikoo al ilmun naafa xel xam-xam bu am njariñ parce que xam-xam mën naa am njariñ mën naa nekk safaan bu ngeen demee ci internet bi da nga xam ne loolu ko waral internet bi ay catastrophe fekk bari na ci am na njariñ lool waaye am na ay musiba yu nekk moo tax sëñ bi ne da nga jëfandikoo kasbul xalaal jëfandikoo al ilmu naafi xam-xam buy njëriñ jëfandikoo al adabul marad yi ay teg yi yu gërëm te mooy li ñu doon waxtaan rek loolu boo ko defee da nekk boo xam ne développement adduna sëpp am na xañ na ci kon yàlla yàlla yàlla nañ xam li am yàlla nañ xam li ñu am te jàpp ko dañ xam li am te jàpp ko sëñ bi nangul ñu ko waaw ñu xam ne réewum Sénégal lañ nekk année électorale bi Sénégal yi nag seen passion mooy ñaari mbir dama koy wax souvent mooy politique ak sport man ngay wax lay nekk mën nañ laa bañ a déglu waaye bu ko dugg ci sport rek ñëpp déglu la débat bi du jeex mel ne bu ñu bëgg a reyante bëgguma tudd benn discipline sport mais sport de façon générale rawatina sport bii xew fi ñu toll ak it bay xewat léeg-léeg te gars yi di ngemb tudduma benn nag waaye dañuy ngemb bu ñu koy def boo ci nekkee man nga fay débattre fii ba suba doo doo bàyyi xel la ngay def te amul njëriñ parce que loo xam ne boo koy def da ngay xool awray jàmbur kon yaa ngay am bàkkaar da ngay perdre heure yu julli am na ñoo xam sax tisbaar fa la di fekk duñ julli tisbaar duñ julli takkusaan duñ julli timis duñ julli gee ci débat amul njëriñ di xool awray jàmbur am bàkkaar te da ngay fay bala nga dugg war delloo si xel yi bu a baax beneen jiitam nga xam ne moo xëy suñu toll nii mooy mooy lëmbi àdduna te amul njëriñ donte of ca tàmbali bi am na njëriñ mais gis ngeen saytaane am na jamono Sénégal gépp lu ci ëpp benn dañu focaliser fenn rek film ba ñu tudd te am na loolu lu ko kon boo ñu jógee mooy politique boo waxee politique Sénégal rek ñëpp déglu la muy débat bu du jeex te débat politique Sénégal li ci ëpp duñ d'accord mukk ndax ni ñuy débattre damay falak diw kii falak diw ki ma faral lu mu def baax na ki ma faral def dara lu baax kon débat bi perdre temps la da ngeen di plateau yi ngeen di gis ci télévision rajo yëpp amul benn njariñ parce que duñ d'accord man diw laa faral A laa faral ki faral bee kii faral C man mi faral A lu A def baax na ki faral B lu bee def lu ba A def du baax baaxul ki faral bee lu bee def baax na noonu la ñu koy defee donc loolu rek mooy débat kenn rek calque fa nekk rek fermilisier loo xam lu xew te loolu taxul ñu wax politique politique projet de société la war doon dañu war xam ne Sénégal moo ñu ñor Sénégal ñoo ko bokk damay wax ne Sénégal dafa tuuti koo nga gis sa mbokk la baa muy sa mbokk mbokk wala muy sa xarit wala muy sa xaritu xarit te réew mi li ñëpp bokk wala ko gox bi wala euh, dëkk bi li ñëpp bokk nañ nañ ma ko dégg nañ ma ko dénk ma saytu leen ko quelque temps jërul waxante lu ñaaw parce que loo ko saytu ak loo mën a def quelque temps rek mu jeex ana Senghor ana Abdou Diouf mm. ab Abdoulaye Wade mm. ku fi mën nekk tam ëllëg dañaan ana nga loolu ñëpp xam nañ ko waaye dañ ko war a bàyyi xel xam ne lu ñaaw li ak xasante yi jëru ko nañu ànd ak dal ànd ak civilisation ànd ak maturité xam ne li ñuy def lañ moom dañuy wax ne Cheikh Mourtala Mbacke Mbax mi dana ñeex bu ci ay ay jógee am na lu ca rax séddoo am ñeex rek bu ci ay gobar génne am na leen lu ca rax duñu ñeex bu kese séddoo ñeex rek yow génne gobar waaye dégg leen ma réew mi ma saytul leen ko wala dégg dégg leen ma gox bi ma saytul leen ko wala dégg ma dëkk ma saytul leen ko wala région bi ma saytu jërul ko waxante lu ñaaw yow moo moo ko di la ko dénk juddu nga lu yàgg nekk ko boo duggee tuuti doo ko nekk diggante bi koy nekk ku si néew jërul lu ñaaw bu ko defee ñu delloo sa xel yi rek xam février 2019 gën a jege tension bi gën a monté parce que année électorale lañ nekk te élection yi day waar dañuy ñaan dañu jàmm tam jàll ak jàmm te ci gën ci ñëpp ñoo bokk Sénégal ñoo bokk ñoo bokk mbaay ñoo bokk lépp dañ bokk mënuñu ko séddoo rek te ci jot na sax fi mu ne mais ay nit ñu bokkee loo xam ne mënuñu ko séddoo mënuñu ko séddale kenn mënu ko jël bàyyi sa morom dañuy rafetal bokkin wa waaw réew réew li ay nit bu ñu bokkee loo xam ne mënuñu koo séddoo mënuñu koo séddale kenn mënu ko jël bàyyi sa borom dañuy rafetal bokki noonu loolu mooy réew mi loolu mooy bokk loolu mooy diine bi loolu mooy yoon dañuy rafetal ni ñu koy bokk delloo si xel yi yàlla ñu ci yàlla dimbale te yàlla faj aajo yëpp defal ñu mucc defal ñu xéewal defal ñu wér saafara aajo yëpp bii rek bi tasaxee rek baatin ci barke borom Tuubaa wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin